maaleykum wa rahmatullah mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV ak Lutte TV 100 pour cent lamb comme ni ma koy waxee rek moom ngeen di seetaan ci ñaari seen yooyu tey nag dañoo ñëw jàmm gën seet si fi kan Siteu la tarkindaa bu la neexee Babacar la ak Lamine yàggay film ak Mohamed du Mohamed la ah Momo mooy Mohamed rek dañoo damm turwa noonu lay demee di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu jàmm gën yi caat ñu ngi koy biggee ànd ak Momo Mané ak Ndey Gumba Fall waaw Aziz design Aziz Tarkina <laughs> Ziza Siteu tey ñu fas yéene waxtaan ak moom ci làmb ak li fi jot a jaar yëpp ak ay mbir yoo xam ñu ngi koy dégg fan yi yoo xam ne da laal wala mu laal waa këram te olof ne nag genn golo gudd na Lamine mais loo ci laal borom yëg ko Siteu maa ngi lay bëgg di la ziar. waaw dellu bëggee dellu ziar di wax ne jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di nuyu àdduna di nuyu sumay am di jàmm di nuyu sumay famille. di nuyu kilifa di nuyu suma sëriñ sëriñ si di Mbàkke alxuraan di nuyu sumay waajur bu baax a baax a baax surtout sumay saaf maa ngi nuyu ñëpp. yaa ngi nuyu ñëpp sita te fi ñuy njëkkee mooy waxtaan bi mooy dañu gis fan yi ci ay bind ci internet beeg yooyu koo xam ne ku la jege la wala ñu la jege ñoo xam dañ leen a jàpp ci ay mbirum xaw ma saafara indien lañ koy wax xaw ma yoo mel ne noonu daal. loolu tey ñaa ngi koy de rumeur baa ngi génn ci dëkk ba ñu ngi koy bind loo ci mën a indi ay éclaircissement maanaam ay leeral ci ñi nga xam ne ñoo lay seetaan rawatina su soppe yi. waaw firne bi ma ciy wax rek mooy benn bi mooy man Siteu maa ngi nii toog ba léegi di wax ak yéen te yaakaar naa ne bu ma nekkoon si leneen loo xamante ne méngoowul ak fula kon duma fi toog ndax yoon moom mooy ñu jiite ñu ñëpp mais li may wax ci loolu rek mooy ci ku ñuy wax dafa nekk kenn ci man nekk suma xarit nekki suma doom day ñaareel bi problème bi bu mu amee premier jour laa ko yëg mais bi mu ko yëgee problème bi li ko waral mooy si ramasse la commencé si ramasse. ramasse benn xale boo xamante ne juste policiers ñoom ñoo ko ramasse mais buñ ko ramassé dañu dem ba ci biir ñu koy santaas di laaj xaalis xaalis boobu bu mu si amee moom ñu woo ko moom si jëm boppam moom buñ ko woowee juste mu fayal ko mais yaakaar naa ramasse. police bi police sosoo ba léegi mosuma dégg loolu man mosuma dégg loolu. ramas la di la laaj xaalis. ok noonu la tàmbalee bi loolu amee ci liñ ma expliqué ñoom bi loolu amee ñoom ñu dem ci guddi gi bi booy joxe xaalis ñu bàyyi booy boobu bi ñu ko bàyyee booy seen biir ñoom fu ñu toogoon ñu remarqué ne ñoom ki leen signalé wala ki leen boole ñoom seen biir la toogoon ñoom ñu téye ko bu ñu ko téyee problème bi foofu la démarré bi ñu ko téyee. erreur bi foofu la nekk mooy ñoom dañoo téye kooku di ko dóor téye kooku di ko yóbbu géej bi ko yóbbu géej ci loolu si sama oto man ci loolu la am. sama oto la ñu yoroon si guddi kooku ndax man sama oto oto boobu moom laay yóbbu entraînement pour toujours mais samay xarit samay xarit lañ samay xarit duma leen pardonné sama alal pour di leen yemale fii ngeen li yem sama alal si loolu am oto bi dafa panne yoon bi. bi mu paanee ñoom ñu continuer bàyyi fa oto bi dem mais ñoom bu ñu téye xale boobu noonu di wootanteeg policier yi ci noonu ñuy wootanteeg ñoom booy bi après daf leen mujjee rëcc mais report bi booy bi am mooy oto bi fu mu paanoon kese la am ñoom foofu lañ fekkaat auto bi lonk ko buñ ko lonkee ci lañ yóbbu oto bi police bu ñu xëyee yee après ñoom ñoo jël oto bi lonk ko yóbbu ko comprendre nga ndax ñu ngi doon coow ak booy ci ay problème ndax ñii jox lañ seen xaalis ñii jàpp nañ ki leen boole comprendre nga affaire problème mais booy erreur bu ñu def mooy waruñu de police di menacer erreur bi foofu la njëkk a commencé bi loolu amee ñoom ñu dem bu ñu demee ba ci biir oto bi ñu téye ko bu ñu ko téyee am booy bu ko demoon jëli ji bu ñu ko téyee kooku moom lañ téye foofu muy benn booy bu ñu téyee léegi buñ ko téyee ne ko il faut ñële ñëw bu ñu ñëwee man après ci laa ñëw pour expliquer leen oto bi man maa moom ñu xamal ma ne oto bi de booy dañ doon coow démb si guddi ni expliqué ma cas bi nu mu demee biñ ma ko expliqué nag man ñoom dañ ma xamal carrément oto bi pour ñu jox la ko il faut ñooñu ñëw te man mënu ma indi kenn mënu ma dem kër kenn naan maa ngi indi kenn bi loolu amee booba léegi jotuma sama oto sama oto maa ngi bëgg jot mënu ma ko jot ñoom ci la ñu def seen biir def seen i enquête di def seen affaire di continuer ba lu ñuy def xaw ma lu ñu si génnee man duma ma avancé si côté drogue ndax man doxuma ci drogue xamuma sama benn xarit ci ay côté drogue kon man duma ma si avancé mais juste sama oto moom laa bëgg a jot te sama oto sama xarit ñoo ko yor mais sama xarit yor oto sama oto mënu leen a pardonné di ànd ak ay nit te yow nga ne sa alal kenn du ko yor mais mun naa wàll si yàlla man du ma dox si lu ñàkk fayda depuis ma nekk xale ba léegi fii laa juddoo mais mosuma dox si lu yoon di tere te du ci dox mais nag munuma ma tey mooy ni koo xamante ne xaw lan nga nekkee si mbedd comprendre te man samay xarit xaw ma leen lenn lu ñàkk fayda mais lenn rek laa bugg a wax mooy suñu kilifa yi nekk ci kaw. mooy ñi nga xamante ne tey ñoo nekk seen i élément nekk ay police di wàcc si banlier bi di nekk ak xale yi ñoom ni ñu dundee ak xale yi ak ñoom li ñu leen di informer bokkul ñoom ni ñu dundee ak ñoom si mbedd bi ak ñoom li ñu leen di bindal si ay papier bokkul man nag du ma avancer si loolu. mais dafa waaw xamal tool du ma ci avancer dama ci am ay mel noonu dama ci musa am benn signature bu may def ma yónni sama benn booy ay dàll. ma yónni ay dàll pour mu jëlale ma ko temps yi maa ngi dëkkee Thiaré Azur mais diggante bi may jëlalee samay dàll dañ ko mujjee jàpp ñoom di santage bu ñu booy bi jox leen xaalis mais ku dugul si affaire drogue doxul lan lan lañ la jàppee war la mën a laaj xaalis man maa leen mujjee topp wallaahi man maa leen mujjee topp di wax ak ñoom téléphone di wax ak ñoom téléphone ne man duma ma ci bañ dara damay ñëw seen police ba noonu lañ mujjee bàyyi xale yi mais bu ñu demee ba ci biir yow ñi si nekk ay policiers ñaar lañ mais ñi si des yëpp yeneen quatre personnes yëpp nekkuñu ay policiers seen lañ te ñoom seen kilifa yi nekk ci kaw xamuñu loolu yaa ngi dégg ndax lan booy fii si banlieue lañ nekk fii nii dafa am xale yoo xamante ni ay xale yu jub lañ dañoo bëgg a jub dañoo bëgg a baax mais amuñu expérience xamuñu lu bari si àdduna te ñun ci banlieue lañ juddu mais juddoo ci banlieue taxu ñu nekk ay nit ñu bon te ñun lu ñu xam si police police mooy liggéey moom ci yoon lañ koy teg mooy police lu ñu xam si police mooy police seen lépp dafa sévère. mais tellement dafa am ay nit ñoo xamante ne ni ñu comportoo ci turu police fii ci banlieue bi yow tellement day yàq turu police te loolu man ànduma ci loolu deppuis mu nekk quelque doon dara ba léegi dama koy wax. tey loolu nga xam noonu am na mais est-ce que yu mel ni dafa faral di am sa dig sa digganteeg say nit ak waa police yu mel ni li muy am bari na wala. bariwul bariwul li tax bariwul mooy man yooyu duma ci avancé. ndax man booy tugg si affaire yow ñàkk fayda dama xam ko ci yow sa dama lay arrêté yaa ngi dégg mais dafa fekk ne boo amee njaboot mu ñu xamee la ko wala nga xam nit nga nekk ay dëkkandoor bu dara amee yow da ngaa war a sol sa daal dem dox tànk jàmm wala nga laaj lan mooy problème am ñu wax la mais ñun tey man ku mel ni man damay dem si kilifa sa di koy ñëw pour xam sama nit lan moo ko fi indi wala sama dëkkandoor mais lañ lay wax ne waroo ànd ak ñii lu tax waroo ànd ak ñoom lan ñu comporté wala lan ci banlieue lañ dëkk yaa ngi dégg man xam nga ay ñaari nit laay fekk nga jël intention bu ñaaw ma teg la ci yoon xam nga ñaata nit laay fekk sa famille ñëpp bàyyi la ma jàpp la ndax yow dama gëm ne chaque jour nit ki mun na changer dañoo war a jàppalante dañoo war a dimbalante dañoo war a nekk kenn ku si nekk yow nga xool ki nga xamante ne yow amul xel yow mi am xel nga ñëw tolli ko xam-xam mais chaque jour kenn ku ci nekk sa bopp moom ngay nekkal du du réew réew li koy doxal mooy yow ñu xool lan moo ñuy avancé ñu xool ñi nekkul ci yoon ñu teg leen ci yoon Babacar man du ma du ma ñaanal intervention nit koo xamante ne nga nekk ci loo xamante ne xaw ma ci du dëgg man ci dëgg rek laay ànd ak doomu aadama mais Abdou bii ñuy wax ni barke alxuraan li ma ko xam ci jom laa xam ci njàmbaar laa ko xam chaque jour ci loolu laa koy conseil nit ki nag passé am passé la mais man chaque jour man du ma du ma bàyyi kenn xamal laa jomb sama àdduna ma ànd ak nit si loo xam ne nekkul dëgg Abdou jàmbaar la nit ku bëgg fameem la man bu ma ko xamoon si leen du ma jaral may toog fii di wax du ma jël sama alal ñoom mu koy yor si bett bi ba leneen du ci bett dégg nga. léegi yow bi nga demee police li ma bëgg xam rek mooy bi nga dañu fekk ci oto bi drogue. nga demee est-ce que ñoom confirmé nañ ni dañu fekk ci oto bi dorog wala fekkuñu ko ci. yee dem naa foofu mais ñoom waxuñu ma oto bi dorog moo ci nekk ñoom dañ ma wax ne ma demee dañ ma xamal ne oto bi li ko fi bàyyi mooy boo yooyu bu ñu ñëwoon yow ñu jox la sa oto yaa ngi dégg te man mënuma dem naan damay jël kenn booy man xaw ma lu ñu def. lu tax xam nga leen. kan Abdou yow déggoolu ma ku ñu wax Abdou bu muy wax sama seex la. déggu lu ma la nit ragal péete si nit day xañ a wërsëg gis nga nit da ngay am gëm-gëm nit da ngay am patience Babacar gis nga man wallahi depuis man nekk xale laa la wax xamala la la ma nit mun a waxal si te fekk naa ko muy xeex wala muy xulu te man si li may xeex yëpp mooy sama dignité mooy man nit du ma fekk ñàkkal ma fayda wala nit du ma fekk dugal ma ci loo ma war dugal man bu ma la gisee ngay doxee neneen sax dama lay bàyyi dama lay bàyyi léegi euh, maanaam loolu am na déjà lan moo war a mën a tere Abdou kon wala ña fa bàyyi oto ba ñu dem pour nga mën a jot ci sa oto yow tamit parce que oto bi nee nga wax li nga wax sa alal la yaa ko moom pourquoi ñoom mënuñoo dem taxaw ñu jox la oto bi. yow ñooñu taxaw mënul weesu am na ñu si téye mais Abdou Abdou Abdou abdu ci boppam mun naa laa waatal si yàlla ne mun naa laa waatal si yàlla man xaw ma Abdou si lu ñàkk fayda Abdou ñooy ànd guddi ak bëccëg. Abdou man gisuma ko pour l'instant comprendre nga. mais li ma la mën a wax mooy Abdou ci boppam lii ma lay wax këram kër kër kër yaayam bi nga xamante ne moom la ñuy liggéey dañoo dem dajji ko te premièrement. pour ma police bi ñoo def loolu. ndax fii xam nga moo fi am fii police bu bees bu tijee concurrent bi mooy ça veut dire que ñoo gën a liggéey ñu ñoo gën a kaar xam nga pour man loolu amul sens pour man banlieue li ñu war a def mooy dañ fi war a indi ay ñu am xam-xam. dañ fi war a indi ay compagnie ay entreprise yoo xamante ne xool ñi nga xamante ne ndax am na fii ñoo xamante ne chaque jour seen buntu kër la ñuy toog am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw mais ñu pourquoi ñu mën a tijji ay entreprise ñëw jàppale xale yi mais chaque jour dañuy gis yaar influence boo xamante ne am na benn booy boo xam ne fii la rek suñu koñ booy bi dafa jàng ba amay diplôme am ci ay erreur yi ndaw ay remance fekk la dóor la yow xolam mënul nangu loolu mu fayanteeg ñoom ñu mere ko booy bi pendant cinq ans dañ ko tëj prison booy mu ñëw ay fréquentation prisonnier kese la yaa ngi dégg kooku àddunaam yàquwul ah est-ce que société bi bu ñu doxee noonu pour chaque jour est-ce que ñun est-ce que yaa ngi dégg dinañ dem Abdou seen kër bi yaayam di tabax moom fas yi mu amoon wallaahi man maa ko jaayloo sama appartement bi may liggéey ci kaw karo ma fa waroon na kare moom laa may yaayam pour mu karale ko ci kër gi ndax sama xarit la awma lu ma ko jox mais nan na fameem ndax depuis ñu nekk ay xale ñoo ngi ci location Abdou problème yi muy am yëpp dimbali doomu aadama moo ko ciy dugal yaa ngi dégg ba leneen la leneen di ko ci fekk Abdou dafa am famille dafa am jabar dafa am ay doom yaa ngi dégg te tey kooku noonu yow dafa am lu mu war a doon si àdduna mais tey li nit ñi di wax si journaux yi wala li nit ñi considéré li ñu ko considéré est-ce que noonu la demee loolu yoon moo xam man du ma avancé si côté affaire drogue mais man li ma maîtriser laay wax mooy li nga xamante ne man loolu laa xam si moom lu baax laa xam si moom beneen bi ci topp mooy sama oto affaire yu coow la woon te coow li mooy xale xale rek la mën a doon koo xam ne nekkul police nekkul dara nga remarqué ne yow moom moo la boole yow si kooku lañ dóor kooku lañ dóor yaa ngi de kon erreur bi amul pour man ni ñu war a def mooy yow ñu nekk ci kaw dañoo war a respecté ñu nekk suuf ñu nekk si suuf respecté ñu nekk ci kaw pour seen liggéey mun a yomb. kooku dañ ko dóor ba gaañ ko wala. non loolu nag wóoruma ci mais li ma la wax ni dóor bi noonu la demee. xam nga ki ñu xaw ma ko xaw ko man ci sa oto. démarche yi ma def mooy damay ñaan rek képp ku nekk kilifa di ñaan aussi tamit justice maanaam ñi nga xamante ne yow lépp loo xam ne moo nekk yoon ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk suñuy kilifa ñi nga xamante ne ñooy éléments yi wàcc si le terrain aussi ñu nekk seen i kilifa ñuy saytu dañuy bind ci papier ndax yow mi nekk toog sa biir kër nekk sa wala nga nekk sa biir clim nekk sa bureau ñu bind la benn dossier indi la ko te. mun na bañ a demee noonu nga pour man loolu àq la nga àtt nit kooku nga sukkandiku ci kayit boobu def ki nikki nu ko neex pour man loolu dafa métti te ëllëg suñu borom dañuy àtte yaa ngi dégg policiers yi dafa am ñu baax am na ñoo xamante ne wallaahi boo leen gisee danga leen di naw ndax nu ñuy liggéey mais am na ñoo xamante ne seen jeunesse la ñuy liggéey ak xool nit neexoo leen rek yow ñu teg la fu leen neex. léegi da ngay toog xaar bañ la oto dina la jaral nga dem ak ñoom. ci yoon pour ñu jox la sa oto. non man maa ngi maa ngi topp maa ngi topp lépp maa ngi topp yoon maa ngi aussi tamit maa ngi yaakaar yoon maa ngi yaakaar kilifa yi nekk si dëkk bi man sama oto sama alal la man maa ko moom nekkul juste pour ma mais c'est sama der man xamuma lu bon depuis ma juddu ba léegi. barki dem dafa am koo xamante ne dafa ma ne sa numéro bi est-ce doo ko fay ma ne ko sama numéro bi ma juddoo ba léegi mosuma ci wax loo xam yoon dina ma fekk tere ma man. dégg nga ma kon bu ma fayee sama numéro dafa mel ni man li ma nekk gawuma ko kon bu ma toogee ba tey mu ne xawuma Abdou dama fekk man fieruma ci xameel abdu amul ku ma ko ëppal ci àdduna amul ku ma dàqal Abdou ndax kenn la ci man barke alxuraan. depuis problème ba tey déggante ngeen téléphone wala. non Abdou nag man moom xawma si lu mu nekk mais li may wax daal mooy maa ngi ñaan yàlla bu dee moom mos na def geste bu baax wala benn ndimbal ngir nit am jàmm. ngir nit am sag ci àdduna yàlla ko suñu borom fay xolam mais yoon rek laay ñaan yoon maanaam ñuy sukkandiku si li nga xamante ne mooy justice mooy ñuy àtte li nga xam ne mooy yoon ñi nga xamante ne dañoo nekk ay alkaati nekk ay nit ñu sever nit ñoo xam ne si yoon la ñuy dox di wàcc sur le terrain seen yërmande gën a yokk si nit ñi nga xamante ne nag yow su lu leen neex rek lañ nekk yoon saytu leen ñooñu teg leen ci yoon ndax police mosul xam fii da ngay gis xale bu ndaw boo xamante ne wallaahi dañ lay ramasse di lay laaj xaalis dañ leen te loolu mosul am prise loolu amul amul ci prise mais loolu moo am ci banlieue bi fii te loolu du yoon waaw loolu du yoon waaw loolu suñu kilifa nañ ko saytu bu baax a baax a baax a baax